Alors, si je won 100 millions contre sa copine, voilà, box sorna. Bonne que choisir. Voilà, à moi, 100 millions avec sa copine. 100 millions avec sa copine. Wagne 100. Je connais. Je connais 200 000. Chérie, nous, nous, alors, si je 100 millions, entre 100 millions et le gourbing et le gourbing, je vais choisir. 100 millions entre bo ma tegalee 100 millions ak bu bëgg a sëyal. wala góor bi ngay wala góor bu may sëyal góor bu ma lu waral choix boobu. <laughs> ndax xëy 100 millions yooyu noonu xam nga nu mu yàgg day jeex bi da ngay bëggante ak à vie tamit yi si 100 millions yooyu noonu mën na la ko jox ku ki wala sa sa jëkkër bu la ko joxul say mën nañ la ko jox ndax alal doom moy alal. alal du xaalis waaw ndax xëy na boo amee jëkkër nga am ay doom yu barke mun nga cee am alal àdduna li ci biir. ku baax nuyu naa la. waaw fay naa la soxna si. ziar naa la bu wér-wér. delloo naa la ziar. alors su ma ne la woon cent millions contre sa copine wala boog soxna ban ngay choisir. wala amoo soxna cent million ak sa copine. cent millions. ak sa copine sama copine. waaw cent yi. ma def ko ñaata. def ko deux cent mille. 200000 nga échangé ko sa copine. waaw kon yow noboo sa copine. 200000 laay jël nga may copine lan mooy copine fii xale jigéen boo mu xaaj li jëntiwuñu la nga may 100 millions 100 millions dafa bari 200000 rek boo ma ko joxe ma bàyyi sama gel léegi nii si sa kanam woo ko léegi nii xanaa gën a xeere. ku baax nuyu naa la. fay naa la yaa ngi am jàmm. maa ngi sant bu su ma la waxoon 100 millions contre sa gel bi nga bëgg a bëgg wala sa coro bi nga gën a bëgg lan ngay jël. non man soxna laa am dama ma coro. soxna nga am ah. kon su ma la waxoon cent million contre soxna bi sa soxna bi nga nekkal lan ngay jël. moo soxna bi ma nekkal jaral na ma lu ëpp un milliard man un milliard sax soxna si laay jël. dégguma. un milliard sax ma ko tegaloon soxna si laay jël. yow nu maa tega de. romb naa foofu. <laughs> lu waral décision boobu. wax nuyu naa la. waaw ñu lay fay. maa ngi lay ziar. nice. alors su la tegaloon cent million euh, contre sa copine lan ngay choisir. loolu bari na. lan moo bari. loolu 100 millions dafa bari. kon ñaata. waaye 10 000 rek nga ma ni suma la tegalee 10 000 nga choisir entre. moo léegi nii ma woo ko sa kanam. yow est am nga gel sax. kan man waaw ngay laajte xoolal. <laughs> la lay xool tegal 10 000 ma woo léegi. su ma su ma tegee 10 000 nga woo ko bàyyi ko. léegi nii. bàyyi ko loolu question. bu 10 000 waaye ma wut beneen jafewu ma de.